salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërëjëfe Serigne Touba jaraw la ko maam Cheikh Ibrahima làmp fan yi nag dafa am benn mbokk bu laajte euh, recette naturelle pour wàllu vari varicocèle varicocèle nag pour ñu ko xamul muy feebarle bi nga xam ni dafay tere nit am doom c'est la dilatation des veines autour du testicule maanaam góor gu nekk am na ñaari testicule loolu nag muy bourse yooyu muy ñaari neen yooyu bu fekkee dafa am dilatation maanaam mu am malformation muy fi spermatozoïde bi war a jaar dafay fatt boobaa dafay dem ba laaj intervention chirurgicale li nak c'est juste pour prévenir pour képp kee xamanteni war nañu wala opérer sax varicocele mën nañu wax ni dootu ko jaar ñun ñu faj yàlla wéral ñu may la loo fajee sa bopp ay remèdes gratuits yoo xam te mën nga utiliser sa biir kër defee que sa biir kër yàlla defal la ci tawféex. non seulement ay complémentaire d'aliments la da yokk ndox bi yokk spermatozoïde bi ndax ñu bëri dem nañu ba ñu leen di wax amuñu spermatozoïde zéro. manam ñi am azospermie ñi am oligospermie ñi am nésospermie manam amuñu ndoxu kay manké na day am problème mobilité day am problème vitalité buñu sey ak seen soxna day nin bat ndox bi day woyef day nin ba ñen ñi sa doot ñuko am mën nañ leen may ay complémentaire d'aliments yi xam te ne récupérer waat yoy ba ngeen am ko bu baax li ngeen ci ñëk gis nak na ngeen xam ni sump mom ñu bari xamuñu ko won waye am na solo torop bokku na ci lu koy faj mbir ba lii bokk na ci lu koy faj muy doomi laaj laaj bii benn gus daay la complet bi moo nekk ni la ca des it citron bokk na ca la koy faj citron moom ñaar lañ ci war a am ci kàttan yàlla ak persil boo am baax na xeetu persil yëpp nay persil rek persil bii persil fleur persil chinois comme ni ngeen koy gisee nii luñ ci am baax na bu ko defee ñoom ñëpp lañuy boole xanaa ñu jublu ci comment ça ñu daal di dagg sunu laaj bi rapidement voilà voilà kon nag laaj baa ngi nii moom laay njëkk dugal ci baraada bi persi baa ngi nii xool nañu sunu set doomu sump ba mu set raxas ko itin ba mu set mu dese ñu citron bi voilà ñaari doomu citron yi mo nek Nous ñu boole lepp def ci bi ndox bi un litre et demi ñu boole au bout de 15 minutes salaamaaleykum mbokki Sénégal ñu ngi leen di nuyu ñun la waa Univers Bio tey nag dañu leen a indiloon suñu produit bi ñuy wax mauvaise haleine ndax mauvaise haleine dafa yaatu am na ñoo xamante ne day génnee ci seen biir am na ñoo xamante ne day génnee seen put am ñoo xamante ne day génnee seen gémmiñ pour ñi nga xamante ne seen gémmiñ rek la nekk nag bii moom moo koy traité bii nag lii ma tee nii moom moom moo koy faj ci put bi ak ci estomac bi ndax mauvaise haleine dafa yaatu comme ni ma leen ko waxee. lii dañ leen koy mayaale ndax day fajaale rab ak jinne ak ngelaw seytaane ñenn ñi ngelaw seytaane moo leen koy ñenn ñi rab lii nag moom dañ leen koy mayaale. waa ñun waa bi yow ku soxla suñu numéro nag da ngay def 77 160 93. 93 sama mbokk de Ketouba, Touba te soxla le produit mauvaise haleine bi numéro téléphone bi nak 76 283 98 69 Touba Jannatul Maxwa ci wetu hôpital Matlaboul Fawzaini. voilà sunu formule bi voilà voilà légui suñu formule mu ngi ni bi mom nit ki soo ko gis résultat mu gaaw il faut nga ci jël trois fois par jour lu tolloog kasu ndékki demi verre demi verre kasu ndékki boko amul kas kaas AGT yi ñi naanee café Touba boko ci naté baxna comme d'habitude sucre bu weex muy suukar bi ñi jaay ci boutique bi conseillé wuñu ko kenn pour walu wér gu ku bëgg sucre del utiliser sucre diabétique bu dee suukar da nga jabet mën nga jël suukar diabétique bu dee diabéto mën nga utiliser miel moom moo gën a baax pour suukar yi wexul ndax amul dara lu wex soo ko mënee naan noonu utile ba tey yàqu ci defaru ci suukar yàqu ko defar ko incha allah ci kàttanu yàlla ak baaxam ak yërmandeem kon képp ki nga xamante ni yaa ngi am sa soxna di sëy moom pendant un te sa soxna tën a am doom formule bii ñu la wan recette bii ñu la wan def ko nga jëfandikoo ko. nit mosu ko utiliser ci deux à trois mois te ci résultat. képp kuñ ko jox rek ci kàttanu yalla dina faj azoospermie faj oligospermie faj mesospermie, faj varicocele. complètement bu amone ay dilatation sirit yu dem ba lem ba fat ba spermatozoïde bi dootu mën a jàll ba nga sentir sax ñaari nen yi tolotul bi dafa reuy bi ci dess ndaw lepp dina ko équilibrer ba mu péral ko ba mu tolloo normal parce que varicocele ñu bëri xamuñu ni boo amé benn bi dafay gën a ngande bi ci dess lolu itim képp ki nga xamante ni yaa ngi sentir sa ñaari testicule yi tolloowul ñaari nen yi bii dafa ëpp beneen bi rek bàyyi ci xel te nga xam ne lii itam lu mën a am la te bu dee am nga varicocèle dina ko faj góor bu toog un sa soxna amul doom jëfandikoo lii ci kàttan yàlla. Serigne Mouhamad Lamine Bara faal moo leen ko doon may Géejawaay arrêt du Balès seen cabinet univers bio kon nag defal nañ leen ko addiyee Serigne Touba ci doole maam Cheikh Ibrahima Fall am